jërëjëf bokk internet yu Dakar Buzz ñu ngeen di nuyu baax leen siyaare di sant yàlla ci ni ngeen di toppee ci seen émission bu mag bii di Dakar Buzz social di gërëm ñi ni bàyyi xel ñëpp moo xam ku nekk fii ci réew mi di gërëm tam ñi ni bàyyi xel moo xam tam ñi nekk bitim réew tàmbale ko ci bon volonté yëpp di suma rakk Mouhamed Amar ak ñoom Girif Sougou Khadim Amar waaye di nuyu groupe yi euh, soxna Awa Topp ah Ndeye Absalo madame Coulibaly soxna faato ak soxna Alima. Euh, bari nañ macha allah ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Hello Africa ñoom soxna Ndeye di leen nuyu bu baax di nuyu waa Nouakchott waa Mauritanie waa Nouakchott di gis tam ñoom soxna Salimata Gaye ñu ni jàppee ci social bi muy groupe bi nekk ca Nouakchott foofu di leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu fépp fu bonne volonté nekk rek di bàyyi xel Dakar Buzz Social Dakar Buzz Social an taxa ñu wéré di ñoom sëñ Jili Ndiaye ak seen sëñ Mamour sëñ Xaadim Sarr soxna su nga mu borom daaru soxna Alima bari nañ ak ñoom Baye Saliou bari nañ di leen ñaanal jàmm di ñaan jàmm yàlla def ko ci réew mi di wéral ñaan yàlla wéral sa malaat tey du ñëwaat ci beneen kaa boo xam ne tam cas bu sensible la ci benn xale boo xam ne euh, ndaw la euh, am benn feebar bu mu judduwaale da ko judduwaale nag mu nekk ci euh, awra bi muy xale nag papam daw ci ba sonn yaayam daw ci ba sonn li tax yaayam ñëwul mooy yaayam dafa tëdd feebar waral papa ji indi ko pour ñu mën koo defal interview ñaanal ko ndimbal waaye jaaxle na ci lii ko dal nee na dem na daan teg ba daan teg ne ko ñun mënatunoo faj xale bi li des mooy ñu yóbbu ko Tunisie pour mën koo defar opération defal ko benn devis boo xam ne nag devis bi xaw na tàng parce que devis bi mu nekk 12000 euros 12000 euros daanaka 7 millions et quelque la 7 million 800 muy loo xam ne ci koo xam ne boo xëyee ndékki ak añ ak reer da lay të nga bindal ko devis boobu dafay gën a yokk jaaxleem ci doomam ji waaye jaaxal nañu mais jaaxalul yàlla suñu borom. ñu koy ñaan ndimbal moom bi nga xam ne lu sotti moo ko sottal waaye ma bëgg a waxtaan ak papay xale bi xale bi nu mu tudd ak li dal xale bi kañ la ak nan ah, bu baax maa maa ngi lay ziar. waaw ah, ñu ngi delloo ziar bu loo tudd maa ngi tudd Alaaji. Alaaji naa Gindo. Alaaji Gindo xale bi nu mu tudd. xale bi kenn ku wala tudd Fatmata. Fatmata Fatmata. Fatmata Gindo. waaw. ñaataat la mu ñu am ci un an cinq mois. Ah, lan moo ko dal. waaw benn maladie bu tudd stérophile vésicale moo ko dal. benn maladie bu tudd stérophile vésicale waaw moom moo ko dal waaw. lii euh, kañ la ko dal kañ kañ nga santi kañ ko gis. waaw bii moom da koo da koo juddowaale juru mu juddoo la affaire bi ñëwaale après par la suite nag ci lañ ko médecin bi daal ñuy xamal ni xale bi dafa ñëw ak formation ñu daal di koy évacuer benn hôpital bu tudd Dantec mu nekk foofu noonu la laan lendemain après ci lañ ko transféré andi daal di koy andi hôpital euh, danteek fii nii waaw léegi bañ ko andee Dantec ci lañ ko opéré. bañ ko opéré affaire bi daal di refoulé waat après ci la ñu bi xamal ne nag xale bi mënatuñ koo faj fii léegi ñu il faut que ñu yóbbu ko extérieur pour mën koo euh, faj foofu noonu waaw léegi ci loolu daal lañ ñu lañ ñu mujjee wax ñu bindal ñu benn benn benn papier jox ñu kayit boo xamante ne ni moom mooy mën a xale bi mën a génn daal waaw. d'accord mais lu tax bu mu juddoo ci hôpital bi euh, réclamé loo ko woof ci hôpital bi wala ñoom wala da ko yéex a gis wala ba mu toll bi. waaw déedéet boobu ba kay ñoo ngi si parce que ba ñu ñëwee hôpital Dantec dañuy jël rendez-vous yi daanaka chaque deux jours dañuy def mais par la suite yi daal opéré nañ ko foofu après ñu xamal ne ñu xale bi ñoom moo duñ koo faj daal loolu daal lañ wax pour ñu bindal ñu sax euh, kayit bi nii sax euh, beneen problème la dañ cee daw ba sonn pour ñu jox toog ñooy jox kayit bi waaw Euh, mais nooy dundee xale bi ak feebar bi ndax feebar bi euh, moom ñaata la am fi ñu ne actuellement. fi mu nekk nii at ak juróomi weer la am. un cinq mois waaw un cinq mois la am. nooy dundee ak feebar bi ci xale bi nga xam ne nekkul feebar bu ndaw aussi nooy jànkoonte xale bi. waaw xale bi moom wax dëgg yàlla moom affaire comme nii xam nga daanaka affaire bi day jëkk-jëkk des fois di sañee feebar bi day jëkk-jëkk di sañee si moom des fois day jëkk-jëkk ak nuñ ko opéré ba pare da ngay jëkk-jëkk beneen liquide di si génn chaque instant tamit dañ koy couche chaque instant couche bi dañ dañ koy changé daal doy na waar daal moom dëgg yàlla kéemaan trop. di nekk lu tàng parce que million millions 800 du du xaalis bu ndaw aussi euh, lan nga wax bonne volonté ñu mën laa dimbali parce que jaaxle nga ci aussi. waaw di ci di ci di ci di ci woo ñëpp na xale bi sax. daanaka man lu ma fere si moom sax yàlla xam na ni sax boo xamul boo xamul la ak boo la tiitaangee dikkee rek ëpp na loolu sax ndax dem naa ci sëriñ yi fu foo xamante ne amoon naa sam benn terrain dama ko wax wanteer jaay ko pour xale bi faju mais jusqu'à présent surtout lu ma amoon ci weccit yëpp dugal naa ko ci pour xale bi faju mais que présent amoon ci benn benn benn benn solution di ci woo nag ñëpp waaw di ci woo Xaadim Samb social si woo waa gi yëpp tamit ci woo Ablaye Dieye ak ñeneen ñeneen su ma limee daal damay juum bari na ci ñoo xamante ni daal ñoo ngi fi def yu baax mais gars yi tamit bu nga gis leen day xaw a jafe bu nga gis leen xaw a jafe trop di leen ci woo bu baax a baax pour ñu dimbale ma ci xale yi mu defee ba wér waaw. d' accord euh, mais tam sëriñ yooyu tam am naa yaakaar ni nekkul lu koy faj peut-être borom kër moom bu jaaxlee rek jaaxle na. <coughs> waaye lii du feebar sëriñ parce que feebar bu génn ci euh, sexu xale bi moom mu judduwaale ko loolu nekkul lu sëriñ mën a faj peut-être sëriñ sax ñoo la ci tereneer ba mu yegg si fii tàdde la ci mën nañ sax ta infection boo xam ne bokku ci parce que ñoom tam souvent tam euh, loolu du seen af domaine mais euh, ordonnance yi ordonnance yi parce que actuellement dafay métti aussi. Hmm. waaw ordonnance yi moom day mel ndax saa boo demee hôpital ordonnance yi dañ saa boo boo la bindal ordonnance xale bi liquide bi ñooy raxasee yaram bi ak produit pommade bi ngay diw ci sexe bi ak yooyu noonu yooyu yëpp chaque instant da nga koy jënd ordonnance yi lu ma yor fii ci ordonnance ëpp na saako kenn xamul lu mu doy waaw ordonnance yu bëree bëri la waaw. mais Dantec ñoom ñoo ko opéré woon après ñu ne mënatuñ ko faj. waaw Dantec ñoom ñoom ñoo ko opéré chirurgie Dantec ñoom ñoo ko opéré par la suite ñoom ñoom ñoo ñu xamal ne aussi tamit nañu xale bi mënuñu koo fajee fii ñoom seen bopp ñoo nañu xale bi mënatuñ koo faj te ñu doon waxal sax ñoom dañ nañ ni carrément xale bi ñoom waa Dantec waruñu coo jëlal benn risque di ko opérer parce que ñoom maladie bii nii du maladie fii loolu daal la wax waaw mais ñoom dañoo jël risque opérer ko parce que xale bi sax risque ñoom risque bu ci jël sax après lañ ma ci jot a expliquer tuuti sax xam nga tamit lu ci bari ko duñ la ko wax dañ la koy nëbb waaw mais xale bi na see ñàkk bakkanam wax dëgg yàlla na opération bu mu def xale bu ndaw juddu mois sax ñu ko xam nga loolu beneen affaire la waaw. te opération boobu da nga fayoon aussi. damaa fay waaw opération rek. kenn xamul nu mu doy xale bi pour ñu transférer ko jëlee ko Thiès andi ko Dakar damaa fay ambulance bi bu ko andi 65000 fay ci or ambulance ko jëlee Thiès andi ko. même ambulance bi ko fay. même ambulance bi dama ko fay bu ko jëlee hôpital bu jëlee hôpital andi ko fii damaa fay ambulance bi 65000 laa ko fay devis bi moo facture bi moo ngi fii si man waaw. muy lu metti loo xam ne tam nit ñi dañ koy réclamer tout le temps nga xam ne ambulance léegi te loolu mooy dëgg boo demee ci hôpital bi léegi. ñu ne dañ ko évacuer dañ lay obligé fay loolu ambulance bi kon ambulance bi njëriñam ci hôpital bi lan lay doon dootoo ko xamati parce que ambulance bu demee ba ambulance bi war a jëlee malade indi ko Thiès ñu la koy fayloo 65000 ci ko xam ne sa doom jaaxle na tam nanu gën a dawal yërmande te xam ni ambulance yi moom bu fekkee pour hôpital bi la nan wax xam ne pour hôpital bi la bu fekkee nag dañ lay fayloo léegi kon nan dajale ambulance yi ci yi yëpp jël ko dem yóbbu ko ca boo maraîcher muy muy muy muy yàpp ay nit xam nga nekkatul njëriñ kon parce que ambulance dañ ko war a bàyyi ci biir hôpital bi ku feebar ñu jël la yóbbu la ci mais ambulance bi ku feebar ñu lay fayloo soixante-cinq mille te bari na ci bari na ci loo xam ne malade da koy wax dama feebar ñu war ma évacuer ñu dama ma da ngay fay ambulance bi bu dee loolu la kon ba man sama wax du neex nan dajale ambulance yëpp yóbbu ko ca boo marisee muy fay muy yàpp ay nit parce que doo comprendre quoi nit ku feebar ak as bi nga koy fayloo loolu tam ah, mais lan ngay waxaat bonne volonté yi ñu mën laa dimbali ndax sonn ko aussi waaw affaire yi moom sonn naa ci trop ndax chaque jour maa ngi siy dépensé chaque jour yaayam mënul xale bi yaayam du nelaw guddi nelaw ba bëccëg gis nga ni ma ko téye nii rek booba léegi doo doo am jàmm man daal lu ma ci war a daal ñu jàpp ci bu baax rek te yàlla tax daal ñu jàpp si pour. Tunisie daal la war a dem. waaw waaw devis bu ñu am Tunisie waa Tunisie ñoo ñu ko defal jox ñu ko Tunisie devis bu ñu am waa Tunisie ñoo ko defar jox ñu ko 12000 euros lañ ñu laaj 12000 euros yi boo xoolee daanaka ay 7 millions 800 lay nekk. waaw. 7000 7000 euh, euh, euh, mille euros 7 millions 500 métti na moo waral xale bi di jooy nii parce que dafay yëg ay douleur yu metti yëg ay douleur yoo xam ne xale la un an mois xam nga ne attanul sax lii ko daal mais ñi ngi tàllal loxo jaamu yàlla yëpp lu waaye mën nga def ko ci parce que sonn na te <laughs> aussi jaaxle na te yàlla boo xoolee xam ni gor moo sonn mais ñu ngi ñaan képp kuy jaboot képp ku yor doom ak ku yorul sax doom te am xolu yërmande rek te yàlla dénk la xéewal ñu ngi la ci talal la ko nga dimbali xale bi nga xam ne tey mi ngi subir ay douleur yu métti yoo xam ne tey yàlla donc ko mën a <coughs> mi ngi jooy rek <coughs> mi ngi jooy rek parce que li ko daal dafa métti mais nag ñu ngi ciy sant yàlla di ñaan daal yàlla gën koo euh, may xolu muñ euh, di waxaat tey taxawaayu Dakar Buzz ci yow parce que yaa nga jaax la ñu yebal Dakar Buzz pour mu ñaanal ndimbal noo gisee Dakar Buzz social. waaw di leen sant rek di leen gërëm. leen sant di leen gërëm bu baax ci taxawaay bi parce sax man mii sax bari na ay kii yuñ ma yuñ ma kii woon sax pour ma dem fa mais dama bañ mais xam nga ku ma yebal fii sama nit ku baax la mu yebal ma fi amuñu pexe ñii nañ ci ñëw ndax gis nañu bonne volonté yi que man seetaan naa leen du benn yoon du ñaari yoon waaye tamit naa fi ñëw rek ngeen jàppati ndax gis naa li ngeen def bu baax a baax ma tax ma jaar fi daal. nan lay mel tiim sa doom mu feebar doole bëriwul xam nga ñu lay këll këlee di fayloo ay ambulance 65000 te ngay doole nan lay mel. waaw loolu moom wax dëgg yàlla moom rafetlu wuñ ko dara dara ndax man mii sax ba may fay sax fay naa nag de waaye bu du woon xale yi moom du ma ko fay te en plus wax naa leen ni yéen lii jiwoon ak yooyu mais obligation la ci bëri ko ci xam waaw loolu moom rafetlu ci dara dara dara waaw bu ñu sañoon daal ambulance yi ñu demee ci hôpital yi ñuy traité ñu bu baax daal a jërëjëf métti na te xale bi du ma ko teelu yàgg parce que mi ngi ak ay douleur mais ñu ngi sant yàlla daal di ñaan ko ku mën a jàppale numéro papaam dina ne ci baaru écran bi dañ ko dimbali le plus rapidement mën koo jàppale lu waaye am sa wërsëg nga def ko ci wo du ma ci wonaan ci ñëpp nag si su diaspora bi nga xam ne saabu bu sama bët xonqee ngeen dimbali ma saabu bu sama bët xonqee ngeen taxaw ma un ancien wala gis ngeen ko noonu mu ngi jooy jooy yu métti parce que dafay metti dafay metti mais daal nit nanu gën a dawal yërmande yi te xam ne àdduna dara dara continué wul li ma mën a conserver mooy nit ku feebar ñëw ci hôpital nga xool ko ni ko mën na la faj da nga lay évacuer mais da fay ambulance loolu loolu moom man mënu ma ko mënu ma ko comprendre loolu moom mënu ma ko comprendre waaw nanu gën a dawal ma yërmande te xam ne nit euh, nit nit nit nit nooy garabam nit bu jaaxlee kuy koy dimbali mooy bokkam waaw euh, ku ko bëgg jàppale numéro papaam mi ñu ci baaru écran bi euh, yàlla yàlla def ci am yàlla taxaw ko te yàlla may ko wér ci barke Leral TV jërëjëf